dem léegi gaar gi mu borom gaar gi léegi mu ñëw moo di Cheikh Abdoulaye Diop Xaas fataane yaa ci gën a gaaw loo wax sa borom danaan waaw dangay fal di folli ci lu gaaw man ngaa ragal ci xarnu bee raki ma mor jaara nga doyloo sëriñ bi seexante gaawaan nga doyloo ki nga yaakaar ku ko yaakaar kenn du la benn Cheikh Abdoulaye Diop Xaas ëllëg li bi di leer ñu gëm la waa ji ma di alku xam ne yàlla buur la rakki ma moor jaar nga doyloo sidanta gaa waan nga doyloo sabanta am nay gërëm am nay ngërëm yàlla ko def mu nit borom ay waay jéggu leen ci seexanta gaawaan li ngay nelaw nelaw du teema yeete li may gërëm gërëm du teema woote jërëjëf Cheikh Abdoulaye lu tax ñu yëkkati xasaay yooyu. waa leen rek la. li tax loolu mooy. Hmm. dangaa yàgg jàppale jàng ko. waaye tey bi ñoo xaalis ne. Hmm. Hmm. Pape Malick. jigéen ba ko naan jaxale ba taal am. ndeysaan. ma ne ko fu mu jëm lu ma ci Cheikh Abdoulaye. wallaahi azim suñu benn xarit bu ñuy wax looy directeur tey jii dañ koo war a jàngal yi dañu ngénte waaye moom yi maag moom ñoo ko war a taxawee waaye dañ ma carte bi faaw ma yóbbu ko ba pare Modou hmm. euh, la bis si ñablaay man tax man naw la moom laa a man Ibrahima Mbour. dëgg la sama mag la ñoo bokk ndey na. wàcc na. ñoo bokk ndey bari. kon jàngal yi mu lay doon indi ñetti baal. waaw waaw boobu ñun ñu ngi jugee Fala Ndiaye maa sama ñoom yaay. dëgg la dëgg la wàcc na liggéey. dëgg la waaye moom dalaa trop trop ndeysaan. ba pare sa la. dëgg la mi ndox ma noo ko woon. xaadim bàyyi fi ay ñax. kay laal keneen koo joxoon bis bi ku dul Cheikh Ablaye Dieng yaax nga ko xaalis boo bàyyee mbër mi nekk ci sa biir koñ dem di faral yi beneen mbër xaalis da ngay sonn te kii sama waaj sama waa ji na fekk mu man waay ndax man lañu te te lu mu am gox bi moo ko gën a firnde bi xam nga lan lu mel nii car masha Allah yàlla bu sama làmbañ nekk ca ci yow ku ko tabax ci gox bëgg nga gox ba lu mel nii ku ko tabax ci gox bëggoo gox ba Cheikh Ablaye wër daf ko la gis waaru gën bu la neexoon dem jëndi kër Almadi dëkk fa bu la neexoon dam jëndi kër Ouest Foire dëkk fa ndax lan Serigne Touba Mbacke Xaadimu Rasuul li muy séddale bi mu koy seddale yow dalaa jox sa wàll loolu yàlla dogal loolu nekk lu lay waxal loo xam ni dan la koy waxal pour yow Cheikh Ablaye lëbb déedéet lu yàlla dogal la te lu yàlla dogal jàmm ci dara loolu moo waral suñu tànk yi tey xaadim mii ni bis bi jiitalul kenn dara ci bàyyi ndax li ëpp solo mooy yéen bokk koñ xaadim mii nee ku la fonk la nee ku la jox cër la nee na yow doo ay kii nee na sëriñam bi may ñëw moom ma wax kàddu yi moo tax ma la ko wax nee na ma Cheikh Abdoulaye jàppee ma ko sax ay bokk taal sëriñ laa ko jàppee ndax man ndax Cheikh Abdoulaye ju koy sang rek la ma wax ju koy sang tamit moom la yor ju koy sang moom lay def ci biir gox bi maa ngi ñaan sama ci barkeb suñu Tuubaa yàlla guddal sa fan ba ku ba ku ba ci bis boo ñëwee kàddu gi ñu mën koo waxaat ba at lu bépp gën koo gën koo maa ngi ñaan sama borom yàlla mu defal ñu ko ci barki sëñ Tuubaa xam naa nag sëñ Xaadim mu sànni ci tamit ay kàddu yoo xam ne incha allahu rabbi dañ koy dégg sëñ Xaadim bisimilah anta salaamu innaka almanaanu rahmaanu ya rahiimu ya xanaanu أنت سلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا خنان لك دار سلام ربي وطوبى ليكن ربي xaasida la si Abdoulaye Diop xaasida la maa ngi lay ziare bu baax baax di la ñaanal di ko sàmm ci yow yal na saa borom gën laa taxawoo bu baax ni mu ko waxee rek yow yàlla dogal na yow yow yow wasila la ci ñun waaw man ma mën naa ko jàpp gox bi musuma def ba dégg lenn lu ñëw li ñu yàgg dëgg mbaa lenn lu ñaaw ñu yaa ko wax dégg mbaa fenn foo xamante ni si fu ñu doyoo doyoo nit dañu dégg vendeur si dafa bëri loolu bokk na ci firnde yi nit mën cee nawe nit dégg loolu nag bokk na ci lu ñu la nawe waaw possibilité yi mën yi amoon ngir mënoon a jël bis bi jox ko keneen bari na lool waaye nag ah li yàlla suñu borom digle jël cër bi jox la ko ci bés bi bis bi bis bu mag la doon bis boo xam ne def nañ ko at bari wallaay bis bu ñu dem ba di ci ak caay man bis bu mag wallaahi yàlla dogal mu jël cër bi nag jox la ko ci bés bi mm-hmm. ndax Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ndeysaan jël cër bi jox ko ci bés mu ngi topp cër bu ndaw mm-hmm. boo woon fekk ñu tànt tànt bi te gamaatee bi yëpp nga ñëw ne ñu soppeeku ko ñu wallaay dana lay laaj ñu ko def ko wallaay ndeysaan am nag soof cofeel ci yow ak nag bëgg ci yow ak yaakaar bu mu sëkk ci yow wallaay moo tax ñu jël bis bi jox la ko addi yi sëñ Tuubaa ngay ji ma ko bëgg rek ko def incha allah loolu mooy ak sëñ Pape maa ngi ko kii macha allah ak sëñ Mbodj mi nga xam ne dañ ko doon waatee fi wallaay sëñ Mbodj ndeysaan ànd ak man fii ndeysaan macha allah ñu ngi kontaan bu baax ci jërëjëf yàlla defal la jàmm macha allah ak sëñ Tuubaa xanaa euh, sëñ bi xanaa ñu jox la rek nga sànni ci ay yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, mbooloo mépp danañ ko waajal di sa jëm rek ci barke sëñ Tuubaa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di wax alhamdulilahi rabbil alamin loolu guddi yoo xam ne ku la ci woore dalaa woo ci jaamu yàlla mm-hmm. rawatina nag muy koo xam ne sa dëkkandoo la waaye man damay wax ni. ku ma tuddee bis àdduna nga ko tuddee te bisam bii dina xam ne bis bu ma fonk la lool insha allahu rabbi di xam ni jàpp naa ko lool te képp kuy sama nit ci kattanu yàlla boo deggee woote bi rek sëñ Ablaye yëkkati na téléphone am woowal la boppam insha allahu rawatina muy waa gox bi ah muy sama kër it di ko couvrir muy TFM kon nag bis bi warta tuuti di gërëm sëriñ bi bu baax di gërëm sëñ boobu di ko wax moom macha allah kàddu yi fi wax rek dara dara mënatuñ